nga ci gisee nag. lépp jàpp waaw yaa ngi leer de waaw. sant yàlla bu baax a baax. Uh-huh. am na loo xamante ne bu dalee si axlu làmb dal ci famille Double dal ci famille Lac de Guiers 2 kon donc dañuy delloo suñu xel ci yàlla. Uh-huh. yàlla moo soxla marchandise am jël na ko. di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jóge yàlla xare ko gën a kawe. lamb ñàkk na. Uh-huh. Balla Gaye ñàkk na. Sa ñàkk na waaye Lac de Guiers 2 mi ñàkk na. macha parce que sama papa sama papa bu bëgg nag nit ñu mënuñ ci woon xam dara. Mhm. waaye man mii xamoon naa ko ma fonko macha allah mu nekk nit koo xamante nit ku nit ku baax nit koo xam ne day sonn ci doomu aadama. Mhm. kon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana. yàlla na suuf sedd ci kaw di masulu ñëpp. métti na axul làmb ñàkk na. Mhm. mais dañuy delluwaat suñu xel ci yàlla ñun ñëpp. parce que ñu fi jóge de yàlla ñu fekk ci jëf ju baax. amiin amiin amiin maa ngi koy jàll ñëpp. di ko jàll Balla Gaye baax a baax a baax. di ko masawu. di ko jàll waa waa Igri Waalo tamit. Ah, kenn. maa ngi koy jàll mbir yëpp tey tey sunu papa Double Less la moo la gën a marqué ci moom. li ma gën a marqué ci moom ah, ni mu meloon ak ñun ba ñuy ba ñuy yóbbu Casamance. loo xamante ne mënu ma ko moo ñu doon dugal. ñun ñi nga xam ne xamuñu woon fu bari. moo ñu doon dugal fépp fi mu doon jaar moom. moo ñu fay jaarale. mooy jamono gi ñuy def caravane. macha allah am na fu bëri foo xam ne jarul wax nag. ok mais loolu suñu bopp parce que secret la suñu diggante bàyyi ak doom. moom fu bëri foo xam ne jaar na koog ñun. Mhm. donc dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fay. fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. amiin amiin yàlla na dajeeg malaaka li yërmande ci bàmmeelam ci barke Seydina am xam ne di ñaan kilifa yëpp ñëpp ñaanal. dëgg la ñun war nañ ko ñaanal mais na ko ñëpp ñaanal la kilifa yëpp ñaanal parce que lu mu bon bon am na lu def waaw drapeau bu nekk raay bu nekk indil nañu ko donc ñu ngi ñaan kilifa yëpp na ko ñëpp sànni ñaan waaw ñu ngi koy mas lu waaw axlu laam ñàkkati nañ ah barki dee boo njaay suñu papa Mbaye Gueye suñu dem na ngi dégg mhm. ñu bëri dem nañ tey ñoo ñàkk suñu papa Doubalès axlu lamb ñàkkati na axlu lamb na ki nga xamante ne tey am na lu bëri loo xam ne da ko doon indi biir Sénégal raaye raaye bu nekk indi na kon donc bu Balla Gaye ñàkkee Sa Thiès ñàkk nañ jàpp na ak lu lamb tañ ñàkk na ñu ngi masalu ñëpp ñu ngi masalu ñëpp di leen jégalu yéen tamit naaj bi tàng na trop xam nga la bàyyi seen yitte yëpp ñëw pour jël témoignage ci suñu papa Doubalès mm-hmm. ñu ngi koy rafet lu baax ci yéen di leen baalu àq ci caano gi ci naaj bu tàng bi merci beaucoup